mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu wax nuyuwaat fii ci Esplanade Stade Amitié euh, ci sectoriel Adam ma taxaw nag tey fii nga xam ni dafa naa ne mooy ferme Maxtum euh, kilifa gi maa ngi lay waaw Cissé ñu lay siyaar. Uh-huh. di nuyu waa Samagal TV yëpp. Uh-huh. di leen siyaar bu baax a baax a baax. tur bi. Uh, Ablaye la Ablaye. Ablaye Ferme Maxtum. waaw laaj ngeen ñëw exposé. Uh, tey yan catégorie nga amal. waaw uh, tey ñu ngi exposé benn mâle adulte. Uh-huh. benn espoir ak ñaari femelle. ñaari femelle. waaw kan ñoom ñu téye nii mooy Adia. Adia nekk doomu bâtonnier ak Ladiva. ah d'accord waaw euh, euh, instant mu ngi ci 26 mois. 26 mois moom la ñu présenté pour euh, kii bi. adie foo kañ la ñëw Ferro Makoum. daanaka parce que mu ngi am ay 13 yo yooyu. ok dafa ñëw waaw la ñu. waaw semaine moo ñu ko jox. semaine di ko nuyoo passage waaw. ok kan moo ko jur nga ni. Euh, doom bâtonnier la bâtonnier moo fi rek record 120. ok ak euh, Ladiva champion Saladam 2020 euh, bi passé. ok ak yaayam. mooy Ladiva moo jël Saladam 2020. ok ah bâtonnier ak Ladiva lañ boole. waaw lañ boole waaw mu génne addiya. Mm-hmm. am 26 mois tey. waaw ok tey mu ànd ak famille yi la. famille yi mi ngi ànd ak Fall yi ñebe bi mooy Fall nekk euh, doomu Latir. Uh-huh. Latir euh, nekk doomu Roi Bachir. ok ba pare jëloon deuxième maire agnel foiru Thiès. ah d' moom la waaw moo nekk nii. waaw mooy bébé Fall yi. Ah, moom moom ah, instant bi wàcc na wala. moom moom instant benn porté la am. an doom ji. Euh, doom ji mu ngi. feral nañ ko ak kan ak kan. ak héritier. ak héritier héritier doomu Roi am na presque deux mu ngi ci vingt mois léegi. vingt mois waaw. nii bu weex tàll bi. weex tàll mooy Fat Bintu doomu héritier la. ah héritier aussi doomu Roi Bachir la quoi. ah héritier tam doomu Roi Bachir la. waaw yéen Roi Bachir moom seen seen seen base la. waaw boo xoolee ñun ñoo oui comprendre saa di si liggéey di si liggéey di si liggéey ba instant moom yëpp suñu ay produits fini la. seen ok waaw macha allah. moom moo ñaata portée. moom moom moom am na benn portée deux portées léegi. deux ok ba Aïcha ah. waaw moom eh? ya? ah, sot direct la. ok ah, waaw sot Bachir direct la ok ñu ngi waat tamit beneen mbote tëng mooy ñebe bi. waaw doomu Ablaye Naar. ok Ablaye Naar doomu Alain. yaa am do benn doomu Laye Niall ak Roi Bachir. ana Ablaye Naar. moom muy kër ah muy muy ok bu ndaw am. na 5 mois 5 mois kon instant bi kan moo fa nekk addiya ak ci maal. waaw maal yi moom ñu moom ñu liggéey fa neex. ok. Euh, Sigil Malaysienne. ok macha allah ñun moom yàgg nañ liggéey. ci ay man quoi différence ah. voilà voilà macha allah loolu moom euh, kii bi euh, tey noo noo noo gisee seen sectoriel bi. waaw sectoriel bi vraiment macha allah daal. Mm-hmm. organisation bi jaar na yoon. yi lépp impact. ba mm-hmm. pare ñu ñuy fal ñu ñuy fal liggéey bi gën a yokku. macha allah ci kaw ci kanam quoi ana grand Lamine Diop mu euh, si gis suñu bopp bu baax. macha allah ana grand Lamine Diop ah, nuyu mu si jàmm bu baax. ñu koy ziare bu baax a baax a baax ok kon euh, tey euh, ba jox ñu adresse ak numéro bi. waaye ñu ngi Liberté 6 extension. ok côté terrain Liberté 6 rek. ok boo ñëwee ba foofu boo ñëwee c'est 78 472 79 87. foofu boo leen rek ñu jël si leen. macha allah kay incha allah incha merci. ok